wax ne mi ngi leen di nuyu bu baax a ah, baax. mi ngi leen di nuyu bu baax. di leen déggee bu baax. di leen déggee bu baax itam. te di leen sant bu baax itam. di leen sant ci dikk gii ngeen dikk. maa ngi doon góob góob maa ngi dëkk dëkk bi teew nañu. waaw dama ñi dëkk bi dëkk bi ñëpp teew nañ ñi war a teewal dëkk bi ginnaaw yéen a teew mel na ni dikk bépp teew na loolu nag bëggoon na ko lool dañ ko daa def dañ ko daa def sax ko waaw da ko daan def ak di ko soññe waaye bi mu da ko daan def waaye bi mu ko daataa soññe sax fekk na ke fekk na xam ne ni yéen yéen a ngi ci loolu mm-hmm. ñu ngi leen di sant di leen yëgal nii liggéeyal maa ko war a liggéeyal sama bopp. lii mu leen di liggéeyloo moo ko war a liggéeyal boppam. aada yi mag ñu njëkk ña ak jamono yëpp. ci aada yi mag ñu njëkk ña ak jamono yëpp. waaw jiite ko jiite ña nga bokkal. Mhm. faaw nga di leen di jënd. koo xam ne jiite ña nga jiite na ña nga bokkal. faaw nga di leen di jënd. waaw léegi-léegi ba mhm. defal la ko. waaw jiite gi nag ca ba chef de canton yi xew sax kenn ku ne yaay gàddu gàddu say fas. borom dëkk yi. ñoo daan gàddu seen ñoo daan gàddu seen fas ñoo daan gàddu seeni i gafaka war seeni i fas. boo def ku daawut def loola nag dafa fekk ki sa si moo la war la koo defal moo la koy defal. loolu nag moom ngeen ci moom. mu ngi leen ciy sant bu baax fu mu war na taxaw yéen a ko fa taxawal. Eh. nee na mi ngi leen di soññ itam nag. ci li nga xam ne moo ñu fi indi dajale ñu fi ci dëkk bi. muy mbirum Serigne Touba. ba muy dikk fii ay mbaam àll ki gaynde rek fi nekkoon. mu toog fi toog fi dëkk bi di fi ne di fi ne bañ di ko bañ di ko tëkkaleeg Ndakaaru. ak dëkk yu mag yi. loolu nag ak cant bu wér la. <laughs> ci moom mi muy liggéeyloo. bëgg na loolee nag muy jiitu ci sunug jublu. mbiram sëriñ bi jiitu ci sunug jublu. farnu lool. te li ci jiitu. moom ko ñaareel mu fekk ma ci liggéey bi. fekk na fekk noo ngi koy ñaanit mu fekk nu ci liggéey bii fekk nu ci tawféex ndax lépp lu mu war a def la ba noppi te di leen ko defloo raafaqtu fii xidmati tawfiiqa xaaliqinaa raafaqtu fii xidmati tawfiiqa xaaliqinaa nee na maa ngi ñaan suñu liggéey bii nu daje seeg tawféex ka nu bind. daje naa ceeg tawféex ka ma bind la wax suñu liggéey bi. tawféex joojee nag noo ci barkeelu yàlla nu ci yàlla nu ci fekk mu fekk nu ci ñun ñëpp itam tam ñi nga xam ne da koo ànd am na sax lu ma waxoon nee na am na sax lu mu waxoon loo xam ne lu ma doon soññi nee na booba da da doon soññee rek ñu bàyyi ko ne dafa am ci dëkk bi nee na booba dañ dañ ñu bari dañ ko ko doon tawat di dafa am ci dëkk bi léegi ñi ñeen loolu muñ ko dëkk bi te ña ko doon wax it la ñu gis yëllali wuñ koog dëkk bi. soo xam ne waaye rek. yow da nga koo xamul wala sa xel ko fàtte. amul kenn ku muy fekk jiw. waaw nag xam na ne lépp lu waaye def ci dëkk bi dafa fekk sa sam ci demut wala da koo xamut. waaye kenn ku jublu def lu yëllawut ak dëkk bi amul. wax ne la ma ne wax rek wax maanaam mu fekkee jéeg wax ji. nee na mu fekk leen ca ak wax ji. wax ji bëgg boo bëgg. li ñuy tuddee kuréel ko kenn def. bu ko kenn def ko jàng nee na woon ba ca bu jiitu nee na woon lii nga xamante ni maanaam mooy corniche bi wër kenn bu ci def lu dul jàngum xasida. loolu itam ñëpp na ko. te noonu nee na loolu ñëpp déggoon nañu ko. waaw moo ñu fi nañ ko ñoo fi jiitu ñi ko fi jiitu woon ñëpp aaroon nañ li corniche bi wër jumaa ji. dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa sànq boobu ci ci. bisimilah mën naa mën naa ko. waaw tegoon mu fi tegoon wax nañu mooy daje kaay bi. suñ Fallou dafay dafay dafa dafa waxoon ne lépp lu ñuy daje nañ ko daje foofu ci arrondissement Ndaam. moom la sëñ Abdoulaye daa wax. sëñ loolu la waxoon. loolu rek la doon wax. nee na loolu rek la doon wax. jërëjëf jërëjëf lu daj murit yëpp. lii ko lu daj mu lu daj murit yëpp moom mënu koo santaane ci lu dul waxtoom ko war a waxe waaye lii mu doon wax nag Touba gi li ci jublu woon. te weesuwu doon loolu. warmaal Serigne Touba rek. warmaal Serigne Touba rek. am na ñu ko ay dégg-dégg. Hmm. lu mu dégg lu mu fekk ñu jàpp ne sama caa am wala ma jaay fi dara nee na nag am na ñoo xamante ni maanaam nu ñuy déggee wax ji dafa mel ni dafa mel ni bukkut ak euh, bukkut ak noona ndax dafa mel ni maanaam dañoo jàpp ni dafa am lu muy tere lu mu daawul tere wala mu am lu mu digle lu mu daawul digle. te loolu amu ci. te loolu amu ci. la sëñ Tuubaa waxoon rek. nii. nii dafa waxoon ne. Mhm. dañoo wax ne mbaam dañoo wax ne. Mhm. ko ba dox tàgge bi ba am ak nopp dafa am loolu hmm. waaw nee na wolof dafa wax ni euh, wolof dafa wax ne mbaam euh, maanaam fot fot tàggaliwul mbaam ak nopp ya wax ju yàqu la waaye nee na loolu wax ju yàqu la sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi wax na loolu euh, fot fot jamuy def hmm. tàggu nopp yi taxul bëgg a tàggoo ko noppam taxul. leneen ca nopp yi te dëkku ca. looloo ko tax di fat fat. loolu waxi sëñ Tuubaa la. waaw moo tax muy wax lu ca jëm. jërëjëf. wala xatal addina ji. nee na tëriwul dara loo xam ne day xatal taalibe bi mbaa muy xatal julli di mbaa muy xatal addina ji. la ma waxoon sama nee na la mu waxoon doomam yeeg sëtam yi. ni leen. ni leen. li ma sëñ Touba jiital ci yéen. li ma sëñ Touba jiital ci yéen. dama koy ànd ak yéen. rek. ci kaw. ci kaw. ñi ji ñi jiital moo jiital. ci kaw jiital gi ko jiital. ngeen topp ma. ngeen topp ma. bu ma jiitoo. bu ma jiitoo. dama leen di jeex di leen geesu rek. bu ma leen séenu taxaw nag leen. bu ma leen séenu it di taxaw nag leen rek. mooy seen seen gisuma leen mu dëpp daje yéen. bu ma geesoo gisuma leen it dinaa dëpp daje daje ak yéen. waaye dama leen jël topp yéen. waaye. kon kon kon bu ma dajee ma jël leen damay dëpp da bu ngeen dëppee damay topp ci yéen. waaye bu ngeen dëppee damay wàññi ko wàññi ko topp ci yéen rek. waaye duñ tàggoo. waaye duñ tàggoo mukk. dara mu yàq doomu aadama yi mu mu jiitoo. dana lay yàq diine mu yàq kaay mbaa mu yàq addina. du ma ko def. waaye man de bu ngeen ma jiitalee. dara lu yàq diine mbaa mu yàq taalibe mbaa mu yàq addina du ma ko def mukk. waaye waaye may doxit nag. damay di geesu. waaye bu may doxit di leen geesu rek. Mm. bu ma leen gisu it nag leen rek. bu ma seet seenoo seen gisuma leen ma ma ma wàññi ko ma wàññi ko wut si leen. bu fekkee ngeen dem ma jiital leen topp ci yéen. bu ngeen moo fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen. waaye duñ tàggoo mukk. lépp ñun ñii ñëpp nag tàbbi nañu ci biir loolu. nee na du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko. yàq loo xam ne yàq ak diine ma yàq diine. nee na dara lu yàq ak wala diine du ko def. lii la du jóge ci moom mukk. ànd naa ñëpp. ànd naa ñëpp. waaw jërëjëf leen di nuyu di leen sant bu baax. jërëjëf. amiin amiin maa ngi wax ne sëñ sëñ ñëw mhm. dama ko def màgg màgg màggum kër gi. nee na sëñ Mewndu da koo def màggum kër gi. waaw sëñ Abdou Lahad ko fi tegoon. nee na sëñ Abdou Lahad ko fi tegoon. sëñ Abdou Khadir di ko bàyyi ko fi. sëñ Abdou Khadir ñoom bàyyi ko fi. mu dikkee itam. bi mu dikkee. leneen lu muy sàkk koo defit. leneen. leneen lu muy sàkk koo defit. leneen lu muy sàkk koo defit. bu dee moom dana ko bay ci mag mag bi magum kër gi. bu dee du tee rek dana ko bàyyi muy magum kër gi. waaye def naa waaye moxtaar mi. moom defoon na def. moom laa teg. sëriñ bi ak yi nga xam yi maa ngi jëg ku mosul def da ngay sàkk la ko defal. nee na nee na man mii nag wàllub service bi ak wàllub la nga xamante ne mag ñi buñ buñ ko ñoo ko war a def waaye buñ ko buñ ko defut wut ko leen ko defal loola digal na ma ko ma def koo defal. nee na mi ngi sant bu baax ci ànd ngeen ko ànd ngeen ko ànd ak man. waaw léegi ku lëjee loo xam ne quartier yi ñuy wax chef de mooy loo xam ne lu lëj la nag ci quartier ak ci yenn barab yi. loolee sëriñ la ko lijjantiloo. waaw ah, li ma li ma ko lijjantiloo ji yoon nag. mooy loolu bëgg na ñu mm-hmm. lim ko bu ñuy yëngu. ñu li ko doon lijjantiloo nag mooy lépp loo xamante ne maanaam corniche lu ëmb lu corniche rek. bu ci kenn def lu dul jàng alxuraan ak xasida def nag li ci def nag yàlla yori jaamam te yërmande la leen yore ñaan mu yokk nag day ñaan mu yokk rek te yaatal ko lool yërmande gi ak yaatal gi day ñaan gi day ñaan rek mu yokk ba faw amiin nga bàyyi waxoon rek ñu fi ñëwee. waaw. ñu jàppale ko nañ ko naagal te ko nañ ko waaw nee na Ablaye Wade taalibeem boobu dafa wax ni dana fi ñëw suba. nee na nañ ko daan gàttandoo ñu gàttandoo ko ni lépp ci yar ak teggin. te teral ko. jëf nag. maa ngi nuyu baax a baax. nee mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. ñaan bu baax waaye ñaan leen di. nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax waaye yéen na ko ñaanal bu baax. yàlla nañ آمين آمين يا رب آمين آمين آمين amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin wa mutum a nan wuri ya mai an da kai amina amina amina kai mai da ne mun yi na ma hafi amina da ya fi lo dan halal le yan ki ya fa na ñëpp toog